الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. حدثنا شيبان شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال أتيت بالب- بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البطن يضع حاجبه عند منتهى طرفه قال فأتيته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحبة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت به ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عاد بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بئس إليه قال قد بئس إليه ففتح لنا فإذا أنا آدم فرحب بي والعالي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه وفتح لنا فإذا أنا بابني بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير ثم عاد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه فكتب لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عاد بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد بعث إليه قال قد بعث إليه وفتح لنا فإذا أنا بإبليس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عاد بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عاد بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه فتح لنا فإذا أنا بموسى فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عاد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل وما معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه فكتب لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسلما زهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم سبعون ألف ملك لا يرون إليه ثم زهر بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغير فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فألقى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ونزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتي كنت خمسين صلاة قال قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فقال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا قال قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أرى فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن صلى الله عليه وسلم إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن خم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة من خم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا وإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من جلس عندك الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات dañ di rafetlu ci jotaay xam-xam yu mel nii benn cosaan donc toogaay boo xam ne dafay am rek ak jublu li la tax a jóg waaye bañ a toog rek mel ne bu wéeru na di seetaan waaye ginnaaw ci nga bokk nga sës rek jàkkaarloo li ñuy def boole say nopp ak say bët ak lépp ak sa xol ak sa xel su ko defee lu yàlla dogal mu tàbbi ca dana ca mën a des borom bi tabaraka wa taala dana ca mën a def barke ndax itte wu ko bunt bi tey kon ñu ngi jëm ci baabal israa bi buntu rañaan di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rañaan boo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo rañaane yonentam ba ila samawaati dem ca asamaan ya wa fardi salawaati ak farataal boo xam ne suñu borom farataal na ko julli yi ci guddi googee al israau wal mi'raj dafa am lu ñu tudde al israa mooy rañaan bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane nañ ko mu jóge màkka ci genn guddi ba àgg baytul maqdis ci guddi boobu la ko jëlee baytul maqdis nag yóbbu ko ci kaw asamaan si loolu la ñu tuddee al miraaj kon moo tax mu tudd al israa wal miraaj waaye fii ci bunt bi rek dafa wax ne baabul israa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila samawaat maanaam dafa mel ne rañaan rek la jóge Màkka ba àgg ci kaw asamaan si waaye loolu ñu xam ne lam ci jublu kon mooy jóge dam ko jóge rek ndax bu ñu nee asra mooy jóg na guddi di dox maanaam tukki guddi moom la ñu tuddee al isra kon al imam an nawawi rahimahullah fi muy teg bunt bii xam ngeen ne saxiifu muslim boo ko gis baabu nangam wala lu tëddul al imam nawawi moo ko def waaye muslim bu tëddul téere bi ay bunt ndax maa nga xadis yi noonu rek toppale waaye ku jàng xadis yi te xam am xam-xam da ngay daal di xam ni yee xadis buntam nii la tudd yee xadis buntam nii la tudd moo tax Nawawi bi muy teg bunt yooyu mu tànnal ko ay titre yoo xam ne jàpp na ne yi dana dëppoo ak moom fii nag la chaque ne lim dugg ci al isra mooy jóg du guddi di dem waaye seetu baat bi li mu dëgg dëgg dëgg nga xam ne al isra mooy jóge di màkk ba baytul maqdis al mi'raj nekk jóge baytul maqdis ba dem ci kaw asamaan si moo tax mu tudde lépp al isra rek benn yoon wax na rañaan dem ci asamaan man ak la am moom rañaan boobu am na tuuti ak juróom ci borom xam-xam yi waaye ala kulli xaal ba muy am fekk na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxnaam Xadiija Faatuma Abu Taalib bi borom defandoo Faatuma mi ngi doon dund situation yu méttee métti ci diggante boobu jurul woon soxna noonu yi bari woon nañ te am nañ doole ba doon dox sax bay dem Taayif buur ko fat ak yu mel noonu waaye tax lu mel noonu am kon jamono yu méttee métti la suñu borom tabaraka wa taala jaar ak moom foofu mu jaar won ko yem ko woon won ko yonent yooyu mu gis ak la xew lépp bu soobee yàlla danañ ci dellusi waat incha allah wóor na ne it ci weeru rajab la woon maanaam ñu weer bi mu nekk waaye ci ban guddi la ci woon loolu ak juróom bare bare bare am nañ ci kon ci gàttal xamuñu moom xamuñu ñaata la woon ci weer loolu mooy li gën a dëgg ndax borom xam-xam yi juróom ci juróom boo xam ne lépp boo ko toppee da ngay xam ne nattale la waaye doonul ko xam-xam bu boo xam ne day des ko fenn day xadis ñëw ci lenn lu koy leeral di wax ne ñaata fan la woon ci weer loolu loolu xadis bi nag xadis bi al imam muslim mi ngi ko jëlee ci cheyxam bu ñuy wax Cheybaan ibn Farruux kooka jëlee ko ca Hammaad ibnu Salma mu jëlee ko ci Saabit al-Bunaani mu jëlee ko ci Anas ibnu Maalik kon xadis bi loolu mooy chaîne bi mooy sanad bi boo demee nag ci Buxaari ndax moom génne na xadis bi bi mu ñëwee ba ci Anas ibnu Maalik Anas da koo jëlee ci beneen saxaabi bi ñuy wax Maalik ibnu Saxsaxa Maalik ibnu Saxsaxa jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muslim it am na benn fu mu ko génnewaat ci biir téeréen bi foo xam ne Anas da koo jële ci Maalik ibnu Saxsaxa mu jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu li may wax moo di ne kon xadis bi Anas ibnu Maalik dégg génne ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam direct waaye dégg génne ko ci ab saxaabi yi it mu déggewaat ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daan def ñaare bu ko dee waxtaane léeg-léeg mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na naa nga ma naan léeg-léeg mu ne dégg naa naa rek mu sax sax mu ne naa nga ma naan waaye boo xoolee ñaari riwaaye yi da ngay gis ne bi anas dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi gën a mag bu dee ci saxi muslim kon lim dégg ci yonent bi direct moo gën a mag lim dégg ci maari rek mu sax sax sanad bi nag ñi ci nekk ñëpp ay basri yuun lañ maanaam waa basra kon loolu dañ koy faral di tuddee la taarixul isnaad léeg-léeg ab sanad day am bi sew sewaan yi nekk ci biir yoo xam ne borom xam-xam yi dañ koy bàyyi xel di ko jàngale waxe عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتيت بالبراق اتيت mooy indil nañ ma bil buraq wala dictéer na ma bil buraq ci li ñuy wax al buraq al buraq mooy lan ñu bari dañuy wax rek ni ko fas la waaye fekk nag du fas waaye daal daaba la comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lii am nee na boobu daabatul abyad daaba bu ñu ko waxee mooy naan nee na tawil bu gudd la maanaam dafa am taxawaay wala wet gaa gudd bu guddeeg wet wala mu gudde taxawaay foofu alximaar nee na moo ëpp mbaam wa dóoral bax lii waaye àggul ci li ñuy wax baax la muy berkele berkele beneen mala la boo xam ne façon ko ëpp waaye moo ëpp mbaam moom tam mu ne nag garab ba ji moom moo ëpp mbaam waaye àggul ci berkele moom tam al buraaq nee nañ dañ ko tudde alburaaq li suratihi ngir gaawaay bi mu gaaw ba mel ne albar dafa mel ne ngelax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam junj na gaawaay boobu yi mu ne yadaahu xaafirahu inda muntaha tarfi ne bu xoolee ko bëtam di yem bu tàllalee tànk bi foofu lay teg kon loolu lu gaaw a baax la gaawaay bi jéggi na jéggi na dayo xam nga ne lu mel ne fas di daw ci loo xam ne bu gaaw la te jéego yi benn ba bu jóg bu nekk fu bët ba toll woon foofu la jéego yi àgg kon kooku gaawaay ba def naa ne ba léegi lu gaawee noonu doomu aadama tegu ko ci bëtam xaal faraki bu nee na mu war ko ñëw na ci riwaaya Buxaari ne moog Jibril ñoo ko war maanaam Jibril dafa war ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war ci kanam xatta ataytu bayt almaqdis nee na ba ma dikkee bayt almaqdis xam ngeen ne mooy ca Quds foofee nga xam ne mooy ñu sell boobee fa nekk di jàkka ja ñuy tudde bayt almaqdis qaala faradatuhu lil xalqati allati yarbiqu bihi moo nekk ci riwaaya muslim bihi la wax waaye ba tey ci Buxaari biha loolu mooy ci riwaaya la chaque ne xalqa ci boppam la ci gën a jaar mooy bidaa waaye bii it borom xam-xam yi wutal nañ ko wëj bu maanaam lu tax mu ne bii yi ñu ne dafa xool rek chey maanaam mbir mu mën a doon am na aw turam waaye am na beneen tur boo xam ne moo ngi ci des yëpp ñoo ko bokk moo di daara la daara maanaam loolu moom yëpp ko bokk li nga xam ne du doomu aadama doomu aadama gis koo taal waaye li ngay yor di ko def ci sa poos wala nga di ko waaw wala nga di ko jëfandikoo comme ay moyen lu ci nekk am na utulam waaye teew na ba mu tuddee noor ba noppi tudd na la pour wax ne ñëpp ko bokk ñun da nga naan lii day dara la wala dara la kon lépp bokkale loolu borom xam-xam yi ñeen li tax mu ne bii di nga xam ne alxalqa mu annas la maanaam lu ñuy jigéenal la ñu ne li tax mu ne bii yi góoral ko kon mooy daara ñooñee waaye su doon tuur boppam mi nga xam ne mooy alxalqa kon bi xaaree loolu comme ni mu ñëwee ci riwaaye al Buxaari almuhim nee na mu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee dafa wàcc daal di ko yeew dana ñëwaat ci loolu nee na nag fi mu ko yeew mooy gént bi nga xam ne yonent yi bu ñu masaan ñëw foofa dañuy yeew kon loolu moom nga ci dégg ne yonent yi daal di ñëw foofu am lu ñuy yeew loolu yi ñuy yeew ndax mooy alburaax bi wala leneen la lu ci nekk waxee sant waaye dana gis dalil ci kanam bu di war ne alburaax ci bopp yonent yi daal di ko war mooy tam xaal summa daxaltul masjida mais bi ma agsee ma daal di yeew bi ma doon koy jubal jàkka ja fa sallaytu fiihi rak'atayn ma julli fa nag ñaari rakka summa xarajtu fa jaani jibrilu alayhi salaam mais bi ma jullee suma ñaari rakka ba génn ci jàkka ji jibril taseeg man indil ma nee na bi inaa'in min xamrin wa inaa'in min laban mu indil ma ñaari ndax yoo xam ne bii sàngaraa ci nekk bii soowa ci nekk mu ne ma tànn ci benn nee na faxtartu labana ma daal di tànn soow ma fa qaala jibrilu sallallahu alayhi wa sallam ixtarta alfitra mu ne ko tànn nga al islam wal istiqaama tànn nga diine tànn nga jub maanaam kon tànn sànqal bi nga xam ne mooy ummul xabaaris musiba yépp ci moom lay jógee waaye dafa tànn soow mi nga xam ne lu am njëriñ ci doomu aadama lu baax lu sell te néew ngay lor kon foofu ak méngale moo ko am ak misaal boo xam ne Jibril am na lu mu ci jub kon yooyu yëpp ay xew-xew la waaye luñ gàttal la ndax xadis bu boo seetloo waaye yi mu am yëpp boo ko boolee lu bare bare bare moo ci nekk ci ay yëf waaye riwaayatu xadisu anas bi nekk ci saxiix muslim dafay bokk ci bis bi da yem ëppul ba dugal ci yeneen yu bare bare bare waaye di yësu ndax luñ soxla lépp a ngi ci biir nee na nag summa araja binaa summa araja topp mu yéeg binaa ci nun ila sama nee na nag mu yéeg bis bi foofu foofu lañ jëlee ak ñaaraat ko yéeg binaa ci man ak Jibril lay wax waaye lii yéeg la doon wax ndax al buraaq la wala déet sax na ne li yéege boobu du buraaq du al buraaq al buraaq bi mu agsi baytul maqdis ba ñu yeewu booba booba la mbiram yem ci qissa bi kenn xamul lu ca teguwaat ci mbiram li leen yéege nag leneen la loo xam ne melal nañ ko ci riwaaye yi ak yéegukaay la bu gaaw boo xam ne gaawaay ba jéggi na dayo melokaano yi bu rafet la ndax nee nañ bu gën a rafet wurus bu dee ci wàllu taar waaye gaawaay ba moo gën a gaaw ak melax kon daal xam naa ascenseur bu doy waar la boo xam ne ci lay daal di yéeg rek mu daal di dem ak ñoom riwaaye bi ñu ko woon moo di ne dafa ñëw ci siiratu ibn Isxaaq ak al-Bayhaqi même ci Dalaa'il an-Nubuwwa foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne summa daxaltu ana wa Jibril bayt al-Maqdis fa sallaytu summa utiitu bil-mi'raaj bi ma jullee ba génn ñi andil ma yéegukaay am na beneen riwaaya summa utiitu bil-mirqaat al-mirqaat mu yéegukaay ma firi ascenseur misaal kon yéeg na lu gaaw ànd ak jibril ñu ngi jëm ci asmaan yi fastaftaxa jibril nee na jibril bi mu àggee mu sax koo ubbilu maanaam mu bëgg wala mu diisoo ne salaamaaleykum qiila man anta yow la kan man bi mu àggee ci asamaan si mu njëkk àgg dafa fëgg ñu ne ko kooku kan la xaala jibril fii la waman maak ne ko kan mu ànd ak yow kon ka nekk foofa xam na ni ñor ko ne am na mu àndal xëy na dégg na lool ci ay yëngutoo wala ci aw leeram wala mu yëg ni jibril daal dafa ñëw te di këm lu doon ni kon am na daal lu soppi luy wane ne lii moom di jibril kese mu ne ko kan mu ànd ak yow qaala muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii la waxat boo bi sax ah dañ ko kon yónni nañ ko foofu nag lenn ci borom xam-xam nee nañ ñu ci waxal borom sa ndax yónnee nañ ko mu doon ak yeneen wala yónnee nañ ko mu yéeg lenn ci borom xam-xam yi ñu ne li ci jublu mooy ndax yónnee nañ ko mu doon ak yeneen waaye lu mel ne alxaafis ibnu xajar ak nawawi loolu dañ la dëgg ndax ak yeneen tam siiwoon na siiw boo xam ne ñëpp yëgoon nañ ko ba noppi ñu yónni li waa asamaan ak waa suuf ak jibril boobu mu doon jaar ba romb yonent yi dem ak ñoom ñëpp xam ne ni yónni nañ ko waaye nag miiraaj bi nga xam ne xamuñu woon ne askan na kon loola la ñuy laaj kon baax bi ñuy laaj boobu mooy yónni ko mu yéeg ñëw ci kaw ngir itte ju mag yoo xam ne moo tax ñu di ko woo ko waaye li ci mën a xewal ak laaj la boo xam ne laaj nañ ko jibril xaala ak boxita ilay bi maanaam yónnee nañ ko fa futiha lana fa ida ana bi aadam nee na ñu ubbi asamaan soosu yu njëkkayam rek ñu xool rek ni aadama nee na fa raxaba bii mu daal di ne ma marxaban wa daa lii bil xëyri mu ñaanal ma aw yiw bu bare bare am na yeneen riwaay yoo xam ne ay taggal la ci yu bari yoo xam ne su ubbi bi moom ku nekk dana wax sama wax bu baax bu yiw nga bu saalix nga àndal nga wax sama yow nee na summa xaraja binaa ila samaani saaniya kon bépp asamaan bu mu àgg ngir ñu gàttal tuuti moo di bépp asamaan bu mu àgg bu ne question bi ñu laaj jibril benn bee mooy kooku man a jibril koo àndal muhammad ah dañ koo yónni mu ne waaw yónni nañ mu ubbi ñu xool bis muy jub nee na kon bi ñu àggee ci ñaareelu asamaan bi bi loolu xewee ñu ubbi ma xool gis ndekete Isa bu Mariam ak Yaxya ah ibnu Zakariya sallallahu alayhima ñoom ñaar ñoo fa nekk nee na bi ma leen fekkee ñoom ñaar farahaba wa daawa nee na ñoom itam ñu ne ko marhaban wa daawa waaye ñu di xëy fenn ku ci nekk loolu rek moo ko xew fu mu dugg ko ne ñoo ne danañ ko ñaanal danañ wax ci moom wax ju rafet danañ ko ñaan danañ ko yaatal ko koy bu baax a baax tatagal summa araja ila samaai saalisa bi mu àggee ci ñetteelu asamaan ba foofa it du mel noonu moo ko xewaat waaye nee na bi mu ubbee ñu xool rek ñu dugg fekk ba Yuusuf sallallahu alayhi wa sallam nee na ida huwa qad utiya chatra al xusni nee na bi ma ko gisee niñ ko daan déggee ñu ne ko taaru la taaru nga jéggi na dayo nee na bi ma ko fekkee foofu ba dafa mel ne genn wàllu taar genn wàllu taar moom lañ ko jox waaw dafa mel ne cinquante pour cent ci rafetaay daal dañ ko koo jox cinquante pour cent yi ci des ñu jëfale ko doomu aadama yi ci des noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam gisee taaru Yuusuf alayhi salaam ci biir jàkkaarloo noonu nee na moom it mu daal koy ñaanal ñu daal di yéegaat dem ca ñeenteelu asamaan si nee na ñu ubbi ñu fekk fa Idris yonent Yàlla nee na moom it mu daal di ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttali aaya bi nga xam ne ci Idris lay wax mu ne war a baax naa ko makaanan aliyya yëkkate nañ ko béréb bu kawe. kon loolu day méngoo ak fa mu nekk ndax ñeenteelu asamaan moom wax dëgg jëlewu fii kon kooku place bu kawe la nekk bu dee ci wàllu daraja yi itam place bu kawe la am ndax yonent la ñu daal di yéeg dem ca juróomeelu asamaan nee na bi ñu ubbee ñu xool fekk booba Haarun alayhi salaam nee na moom itam daal di koy ñaanal jaar ko ña ca def jaar ko ñu jóge ko dem ca juróom-benneelu asamaan ba nee na bi ñu àggee ko ko Moussa alayhi salaam dañ ko fekk moom it bi mu àggee rek mu def na yonent yi ca des defoon rek ñaanal ko tagg ko wax ci moom wax bu baax ñu daal di tàggoo kooku ñoom it yéeg dem ci juróom ñaareelu asamaan bi ñu ubbee foofu lañ fekk Ibrahim alayhi salaam nee na ñu ngi ko fekk mu wéeru ci albaytul mahmur albaytul mahmur yàlla dafa am ñaari néeg benn néeg bi ci suuf la nekk muy muy albaytul atiq ba nekk Makka mooy Kaaba la beneen bi mooy albaytul mahmur bi nekk ci juróom-ñaareelu asamaan ba benn bu ci nekk jaamukaayu yàlla la nit ñi ñooy tawaaf di wër al baytul atiq ñoo jinne yi gëm yàlla malaayika yi seenu jaamu yàlla ñu jaglee leen al baytul maamuur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk li na lenn ci lam ko jot a gis nee na ñu fekk ko Ibrahim alayhi salaam mu wéer gannaawam musnidan dahrahu ila albayti almahmur wa ida huwa yadxuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilayhi nee na bés bu set juróom-ñaar fukki junni malaaka danañ ko ñëw jaamu ko yàlla daal di dem te nee na ko askan du ko del si kon wama ya'lamu junuuda rabbika illaa hu malaaka yàlla yi moom rek moo xam luñ toll wala bindee ko ndax su fekkee ne ay malaayika benn xeet la ci bindee bi suñu borom tabaraka wa taala yi bind bari nañ bari ba toll noonu te xeet yi bind kenn xamul ñaata xeet la kon wax dëgg yàlla borom bi ñu bind bari na ndax su fekkee ne booba ba tey nga xam ne yonente bi ca loolu la leen fekkoon bàyyi leen ca te li wér mooy loolaa ngi continué ba léegi mooy bis bu ne soixante yi mille ci ay malaayika danañ ñëw wër kaaba boobu ci asamaan sa suñ noppee dem seen yoon te bu ko def benn yoon bu doo ko del si ñeneen ñi ñëw bu ëllëgee kon booba lim bi def naa ne gëmoon chiffre sax mën naa génne lool ku doon jiima ku doon jiima rëdd bu wëttu da ngay taxaw di rëdd di dem rek bu wëttu ba dof génn sa rëdd kon kooku mooy Ibrahim alayhi salaatu wasalaam nee na summa dahaba bii ila sidratil muntaha dégg nga foofu bii la waxul bi naa nee na loolee lay joxoon ñu ngir xaar ba rek mu dem ak man ndax jibril moom foofu la yem maanaam foofu nga xam ne fa la Ibrahima yi wala sidratul muntaha foofu la malaayika yi foofa la seen xam-xam seenu dem foofa la yem moo tax ñu tudd ko sidratul muntaha fa la yëf yi malaayika yi fa àgg wa lillahi illa lahu maqaamu ma'luum dana am suñu béréb yoo xam ne nag suñu àggee foofu foofu la nag yëpp ci des na yaate nee na nag tumma lahaba bii mu daal di koy yóbbu ila sidratul muntaha mu dem ba àgg boo xam ne borom xam-xam yi neen ñu tax ñu ko sidratul muntaha mooy aynul malaayikati yantahi ila hunaak malaayika yi seen xam-xam ñu bari bari lañ xam foofa la yem la ko weesu jëm boo xamatuñ ko dara dafa fa nekk fee awaali ak yeneen yëf suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam nee na sidratul muntaha ak garab la ak garab la boo xam ne tur yu ñor mooy déem ak déem comme ni ngeen xam ne ni garabu garabu déem ñu di tudde si déem nee na fa ida waratuha ka aadaani fiya nee na xob ya dañoo mel ne noppi éléphant maanaam ñeeg noppi ñeeg ni mel noonu la xobi garab boobee mel wa ida samaruha kal xilaali meññetam dafa mel ne ay mbuuka mbuuka mooy baag boo xam ne bu mag la boo xam ne suñ koy jukki daaba ngay takk buum nga mu di ko xëcc ba ba muy jël waaye doomu aadama mun koo mun koo jukki muy jël jàngoon nga ca xadis ba ñu ne ida balaga almaahu kulla kayni lam yaxmil alxabas maanaam ndox su xasee dem ba mat ñaari kul la maanaam ñaari mbuuka su boobaa mënatu la sobewu kul la nee na kon meññeef na kon def naa si dégg boobu meññeef na doy na wax ndax doy na lool xaala falamma rashiyaha min amrillahi ma rashi tagayyara فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ni ko borom xam-xam yi di melale lii mu wax bi boo ko seetloo dafay mel ne dañ ko doon woon taaru bërëb boobu ndax ñu ñëwee ba ak ba gis déem boobu ma xool xobam yi xool meññetam ni mel dañoo jékki-jékki rek melal ko benn melokaan dugal ci ay leer ak ay jëf-jëfaan yoo xam ne mooy taaram dëgg dëgg dëgg mu ne bi mu ko xoolee ci li borom bi dugal si ci xeetu taara bi mel noonu ci garab bi nee na garab gaal ba amul benn mbindeef bu yàlla bind moo xam ne mën naa toog di ko nekk si xanaa nga def ko jël ko sa bopp rek loolu léeg-léeg mu am parce que bu jamono yi yàgg waa joo xam ne dafa aji woon bay door a ñëw dëkk ci kaw xam ne mus na gis lu bari bari nag ci bu ma saan ay lu muy liggéey mooy toog di nekk la rek kooku moo ko def ba mu yàgg mu yëg mu yëkkat di jooy ne wallaahi dama gis ku fa dem doo ko mën a gis jéem naa li ma mën def wax naa leen waaye boobu laa mën loolu bu fekkee fii ci suuf rek lay am béréb yu mel noonu nga jógee ci benn environnement dem dugg ci beneen yëf yi kéemaane ci yow ba àgg ko kon dana gis sallallahu alayhi wa sallam nga xam dañ ko doon woon manifestation yu mel noonu nga xam yàlla da ko doon woon nag taar dëgg dëgg dëgg mu ñëw ba ci sidratu muntaha di yabal yëf yi comme lamp yi tàkk léeg-léeg ñu gis feet yi xew ci jamono ñuy taal ay pétard yoo xam ne gis asamaan si jekki-jekki yi xonq bi gulal bi mel ni daan am loolu ay misaal la yoo xam ne wan nit ci taar loolu su fekkee ne borom bi nag moo jubloo woon ak yeneen tam taar nag ci mel noonu kon bu ma jógee lii mu wax rek li ma wax nee na amul kenn ci bindeef yàlla yi ku ko mën a wal yi nga xam ne yàlla moo leen moo leen bind min xusniha nee fa awxa allahu ilayya ma awxaa foofu nag nee na yàlla xamal ma wala ma ko xamal maanaam lu taxaw mu woo nee na fa farada alayya xamsiina salaata bokk na ci li ko yàlla jox boo fa mooy mu jox ko juróom fukki julli ne ko boo demee sa xeet bi nañu julli juróom fukki julli bi su ko set fi kulli yawmin wa layla guddi gu nekk bëccëg ba nañ julli juróom fukki julli nee na fa nasaltu ila Muusa alayhi salaatu wasalaam Muusa mi ngi nekkoon ci ban asamaan juróom-benn kon romb na Ibrahima alayhi salaam moom wax ko dara mu ñëw ba ci Muusa nee na fa qaala maa farada rabbuka ala ummatik xam na ne dem gii mu dem di woo ko mi dem ngir dana ci am moo tax mu laaj ko lan lañ farataal ci sa xeet bi nga demee kullu xamsiina salaata dana ma ne ko juróom fukki julli qaala irji ila rabbik dellul ci sa borom li ko borom xam-xam yi firee mooy irji ila al mawdi alladi naajaytahu fihi awalan li tunaajiyahu fihi saaniyan dellul ci bérëb ba nga taxawoon di déeyaareeg sa borom waaye irji ila rabbika bi jaay mooy dellul ci yàlla fa mu nekk ca aras maanaam fa nga mën a yem fa nga taxawoon di déeyaareeg sa borom dellul foofu soo demee nga dé déeyaarewaat ak moom fasalhu taxfiif ñaan ko mu wàññi ko fa inna ummataka laa yutiquna dalik sa xeet bi duñ ko mën juróom fukk bis bu set juróom fukk yi duñ ko mën fa inni qad balawtu bani israil man nattu naa bani israil man Muusa wa xabartuhum te xam naa leen ndax bani israil la chaque ne nit ñu njëkk ña nit ñu njëkk ñi ñoo ëppoon kàttan ñoo ëppoon ay jël ñoo ëppoon man-man itam ak doole ak wér-gi-yaram kon lépp loo xam ne tële woon nañ ca nit ñi ngi ci daw di wax lu gën a feebar ci yëpp mu daa nekk man natt naa banu Israayil ba xam naa ne qaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na farajaxu ila rabbi ma delluwaat am ca béréb ba fa qultu yaa rabbi yow sama borom xaffif ala ummati yi waaye faral sama xeet bi juróom fukki julli kat bari na fa xatta an nii xamsa mu wàññi la ma juróom mu des ñaar fukk ak juróom quarante sept fa rajatu ila Muusa fa qultu xatta an nii xamsa nee na ma ne ko wàññi la ma juróom de nee na mu ne inna ummataka la yutiquna dalik sa xeet bi duñ ko man sa xeet bi duñ ko man dellul ñaaraat mu wàññi la qaala falam azal dañu ma arjow di dellu wala bu la defee nga ne di jaabante bayna rabbi tabaraka wa taala wa bayna Muusa alayhi salaam nee na may dem di jël si waat su ma demee rek ñu wàññi ma juróom dellu si waat mu ne ma dellu ma delluwaat xatta qaal ne ba sama borom ne ma yaa Muhammad yow Muhammad innahunna xamsu salawaat defal naa la ko juróomi julli defal naa la ko nekk juróomi julli kulla yawmin wa layla bis bu ne bëccëg bi guddi gi muy juróomi julli li kulli salaatin ashrun gàll yi julli boo julli bu ne am nga fukki tuyaaba fa dalika xamsuuna salaatan ñu ko kon julli wu ne juróom fukki julli waaye da ngeen am yoolu juróom fukki julli juróom ngay julli boo ci julli bu ne am nga fukki te yaa kon loolu juróom fukki daal di mat borom bi tegal ko ci ne ko wa man hamma bi xasanatin képp koo xam ne itte woo naa def lu baax falam yàqal naa te defu ko ku ci bët la ko xasana ku yéene def lu baax ba ko bëgg koo def nga xam ne dara teew la ko lu dul naat lu mënta ñàkk nee na lu ci doon la bu xasan dañ ko ko bindal muy benn tiyaaba xam na nag du caagi rek mooy mu topp ci biir naa ak neexoon na am naa nga ma def naa nga ma ak neexoon na am million nga sàkkeen cinquante mille ak neexoon na ko déedéet kooku te loolu ndax loolu gis nga wut tiyaaba moom waaye day doon loo xam ne xam-xam def na ko ci ba jóg nga xam ne def ba rek moo moo ko dese ngànt ci ci misaal nit ñëw na ku ñàkk di yalwaat taxaw ci dund ba rek xaaral ma jóg man de am na lu ma bàyyi woon ci néeg bi ma ñëw dox dugg ci néeg bi di seet loola bi nga ko jëlee ba génn xool nee na la waaja dem na waaja dem na foofu foofu muy am mooy ittiwoo dara nag ba jóg parce que yéene def foog ngànt ñëw loo xam ne nan ko bëggee woon sotteewul noonu su boobaa yàlla bindal na la yool bu saxe doonte jëlaat nga sa xaalis delluwaat ko ci xam nekkoon wala la nga doon doon saxe fa in amilaha kutibat lahu asran su fekkee loolu lu bëggoon a def def na ko nag ñu bindal ko fukki bi yàlla mu teg ca ne wa man hamma bi sayyi'atin ku jubloo def nag lu bon ñaaw tiir falam yaamalha ittiwu na ko ba nga xam ne dara des ci dul di ko def fa bàyyi ko mais lam du tab shay'an boobu gis ko fa in amilaha su fekkee lu bon loolu mu bëggoon a def def na ko nag kutibat sayyi'atan waahida ñu bindal ko ko mu nekk benn yow dëgg yàlla yërmaane bu rëy ku alku da ngaa mujj mucc rek yooram nañ lépp buum yi mucc kaay yi ba tey xaala fa nazaltu xatta ntahitu ila Muusa ne biñ ma waxee wax jooju nag suñ ko dégg ñu jot li man juróom la waaye su ngeen ko defee am yoon juróom ko ba noppi nag jox ma xéew xabaar bu neex boobu bii mais nag ma ñëw ci Muusa fa axbartuhu ma wax ko fa qaala irji ila rabbika fasalhu tasxiif delluwaatal ñaan sa borom mu wàññi ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يعني ما قد رجعت الى ربي حتى استحييت يعني ما دام جابان كان عليك نك رسنا ما ديرو تي نيانا تي ما واني جوم جوم نا بار يا فوق لا ما ديرو كون فوق لا جي جوم جوم لي دال دو رفات تي يونس صلى الله عليه وسلم ak ci aw xeet ñu teg ca ne boo jullee julli bu nekk te teg ko ci yoon ñu la charia jàngal am nga yoor ku julli fukki julli kon juróomi julli yooyu nekk na ci yow yoor juróomi fukki am na rek ay tomb yoo xam ne dañ ciy jaar wala ñu ñëw ci lenn ci njëriñ bi ñu njëriñoo ci xadis bi tomb yooyu bokk na ci moo di ne alquran moomu ñu wax ne lekk yonent yi moo nekkoon daaba gi daan war الإمام النووي في أكثر في شرع في شرع صحيح مسلم لأنه يحتاج ذلك إلى نقل صحيح loolu nag dana aajoo ñu xam ci dalil bi war ne anbiyaa yi dañ ko daan war waaye bu ñu xoolee ci sunanu nasaar yi ci tariq Yasid ibn Abi Malik an Anas maanaam solo xadis bi ci boppam ak xadisu Anas la ci sunanu nasaar yi am na ziyaara bu ko ñëw maanaam ndool leen loo xam ne dafa ne wa kaanat tusaxaru lil anbiyaai qablahu maanaam moom daa bala joo xam ne dañ ko daan tàggatal yonent yi lu jiit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu leer na nañ ne kon dalil am na bu wane ne dañ ko daan wax boo xoolee nett li bi yëpp ba mu jeex ni mu tëddee ci riwaaya bi Anas ibn Malik ci Sahih Muslim ku jibril àgg bu ne day fëgg wala day yëglu ñu ne kooku mu ne jibril ñu laaj ko laaj bi àgg waaye dégg ñu foofa ak nuyu salaamaaleykum wala waaleykum salaam loolu am na waaye ñëw na ci riwaayatul Buxaari yi te tax boole riwaaya xadis yu am solo anna jibril qaala inda kulli waaxidin minhum minhum sallim alayhi maanaam su jëkkii bu diis li muy jëkk a wax yonent bi sallim alayhi nuyu ko nee na fa sallallahu alayhi fa radda alayhi salaam maanaam benn bu ci nekk yonent bi day nuyoo yonent ba nekk ci biir foofu fay ko ak nuyoo ñu doon tàmbalee wax wax yooyu kon nag ñu xam ne xadis ngir nga mën koo xam li muy wax faaw nga boole riwaaya bi ak bii ak bii loolu ak génn nag njël muy résultat boo xam ne ma lay jox la muy wax dëgg dëgg waaye su loolu amul kët mën ngaa ñëw ne waaw jibril ak yonent ñuy ànd di dem ci ay asamaan di gisee ay malaaka di dugg rek di fëgg ñëwee ubbil kooku nga naan maanaam te nuyoo amul loolu mën na laa jaaxal waaye fekk nuyoo ba am na waaye riwaaye yi dañ koy boole boole ci boole ba tey xikma bi ci israa maanaam wutal ko lu mel ne as mu war ko bi mu noppee ñu wutal ko leneen lu mbara bi di baxtal si jëm kaw asamaan te borom bi tabaraka wa taala li ñuy tudde tayyul ard mënoon na ko defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mënoon naa nekk màgg ba mu yàgg rek tarfatu ayn rek mu njëkk nekk ko ci baxtis borom bi mën na loolu wala déet moom kay bu ko defee mu doxale ko noonu waaye dañoo wax ne daf koo def noonu takniisan lahu bil aada fi maqaami xalqil aada bokk na ci yërmaande nit ki nga xam ne nit la nag ak lu mu mën a doon doonte yonent la it nag boo koy defal yenn xabaar yu rëy yi itam nag nga defal ko loo xam ne dana mën a dëppoo ak xelam ak fitam am xelam ak fitam ndax wax dëgg yàlla toog sa néeg bu yàgg ni léegi fi nekk baytul maqdis boobu mën naa ub bopp te duñ fàtte la ko daloon te xaaroon ira ba mu ko jógee dafa daw def ci xale yi rek mu sàng leen di dox mel ne ku tawat kon su ca lu mel noonu tegee te foofu ku ñëw soxna mu ñëw di dégg bi maanaam comme nit dafa nekk ñoo xam ne xamuñ ko kenn kon jaxas mën naa am ci biir ñu wutal ko loo xam ne dana mën a dëpp ko lu tolloo lam xamoon muy daaba ju muy war ak lu mu gaaw gaaw nag ab gaaw la war a dëgg te daa war a fas daa war a dëgg daa war a ñu waral ko loolu lu muy gaaw gaaw moo tax ba mu àggee comme ku war rek moo tax dafa wàcc daal di yeew comme ku war la ne mën nga yeew rek su ko defee xelam daal di dal benn muskil amul ci ci mbir moomu loolu ci yërmaande suñu borom tabaraka wa taala la ci bu dee xottil baax ku mel noonu mu defal ko ci anam boo xam ne bu bu dal xel lay doon tiitaange bi ci dugg loolu daf ko daan def ak yonente bi gis ngeen Moussa alayhi salaam ba ko yónnee mu jëm ci Firawna jox ko yet bi jéggiwul ba mu àgg di sànni yet bi waaye ci yoon bi la daf ko sànni yet bi mu ko sànnee mu doon jaan Moussa dafa daw ci ba mu nekkee ci yoon bi moom doon لما رآها تهتز كأنها جاء ولا مدبرا ولم يعقل dafa sax ko jël la dina ko déet moo tax ñu kaa jël mu jël mu daal di gaaw ko ñëw kon xel daal ne daal boobu moo tax bi mu ñëwee ba ci kanam firaw la ñu sànni seen i jabar ak seen i yëf ñoom seen i gaay bi mu sànni yàgg mu doon jaar foofa taw suñ ko yeexoon ba ak si boobu mu xaw ci kanam moo la ko tax la ndax ci béréb lañ nekk boo xam ne kenn ku nekk kon borom tubaab bi waaw moom lay jëfee yeneen kër di leen bon ay mbir yoo xam ne day wàcce ci ñoom li bëgg a wàcce ànd ak seenum jàng ko war a daal ba gàllum manqué wala suufi wala doye bi du wuññi bi ci kanam ñeneen ñi. mu ne si naa wax ne waaw yonent yi di ñëwee ci seen xabru dina la nu mu demee ci asamaan yi di leen ko fekk ndax fii mu toll nii foofa lañ nekk nga xam ne bu bu demoon ci asamaan yooyu da nga gis kenn du ko fàtte da nga leen di fekk ba wala ñu seen i xaw ma ne question bu ma la posé la dikk na ci xadis bu wér boo xam ne Abdurahman ibn Hashim moo ko jëlee ci Anas ma riwaaya bi ibn Hashim boo xam ne ci Anas la jógee daf ne wa bu'itha lahu Aadamu fa man duunahu min al anbiya maanaam dañ leen a dekkal andi leen foofa dañ leen a dekkal andi leen foofa mu fekk leen fa waaye ba loola jàllee dañuy delluwaat fa nekk kon loolu lépp ci xew-xew rajaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la doon xewee kon mu wane ne borom bi tabaraka wa taala joxoon na mbir moom yi it yu rëy rëy rëy ba jaral ko dekkal ay yonentam indi leen ci asamaan ya moo tax wala wax naa makaanan aliyyan yooyu ñuy wax ci Idris moo Isa ñoom ñaar doom ñoo ci ñoo xam ne sax na ne yàlla daf leen a yëkkati yóbbu leen di nekk ci place bañ nekk ñu nekk waaye ku ci dul kooka dañ laa dekkal ci bés boobu indi la nga ñëw fekkee mbir ma nga naka di delluwaat koy nekk ñu ci des nag yàlla da leen yëkkati woon moo di Idris la Isa la alayhim salaatu wasalaam ba tey mën nga ne waaw yonent yi ñu tudd moo ne am na yeneen yonent yu bari yu mel ne Nuux alayhi salaam ñu mel ne moom kenn tudd leen bi ñoom ñu anam lu tax indiwuñu leen borom xam-xam yi nee nañ dafa am xikma bu nekk ci biir loolu moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la chaque ne mi ngi doon dund dund bu metti ci diggante boobu yi nga xam ne ci la al isra wal mi'raj doon amee nekk loolu ci wàllu daaw ñooñu ko yàlla woon yëpp jox nañ ko misaal muy wane ni kii ci lii la nekkoon loo xam ne nuroo na ak yow ci sa mbir loo xam ne ak junj la ngir nga mën ko dalal sa xel maanaam li nga xam ne moo ko dara gaar ca kanam dafa gaaroon ñii ñu ko ñii ñu ko andi boo jëlee li nga xam ne moo daloon aadama alayhi salaam muy nekk fi bérébam bu bu neex boo xam ne moom la miin moom la xam ni àjjana jafe-jafe ñëw ñu wàcce ko mu jóge àjjana ñëw ci suuf jaamu fi yàlla nga jóge fi delluwaat àjjana ñu ne loolu ak junj yi la ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mu nekkoon muy màgg nga xam ne fa la dund fa la miin fa la amoon jàmm danañ ko génne ngir jafe-jafe mu jóg fa def dana dem ba jafe-jafe boobee jeex mu jëm si war màkka comme ni Adama alayhi salaam dem ko woon àjja moom ci ñu ne kon gisu aadama gi loolu lay junj ñoom ñaar kenn ku ci ne ci ngay doon bu nekk tamit tamit ñu ne Isa alayhi salaam moo Yaxya kenn ku ci nekk sa diggante ak yahood yi nga xam ne ñoo ko doon dundal jëlee ci ñoom ay métti ak i jafe-jafe yoo xam ne jéggi dayo la ak i lor yoo xam ne àgg na ci fexe leen a faagaagal sax pour rey yéemal nañ leen yàlla mosal leen ci loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy jujjal ne ko même yahood yooyu da nga jaar ak ñoom mel noonu pexe gën danañ la ko fexeel ba danañ la jéem a rey sax waaye nag da nga mucc ca lool kon loolu leer nañ Yuusuf alayhi salaam ay bokkam ak jege ñaareel képp ñoo ko doon xeex bala ko daal dal ci ay metti bañ génne ko te ak ci jaay ko sax mu nekk ci ak kumraay ci moom yàgg yàlla jabaat ko doole mu jël si waat ba yëri kàttan ñoom ñëpp junjal ko ne ko da ngay jaar ci lu mel noonu ndax su bokk yéen gën a jege ñoo lay xeex ñoo lay yor ba génne la waaye mujj ga day jël si waat moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bu ñëwee ci Makka bi ñëpp tiitee ba teg seeni loxo ci seeni dënn di ko laaj loo nax ci noonu bi mu leen di wax idhabu fa antum tulaqa awaa mu wax loolu daf ne aqulu kama qaala Yusuf la tasriba alaykum danaa leen wax lu mel ne da leen ñu dañu ko waxoon ko nitam moo di yaraange teguwul ci seen kaw jéggal naa leen Idris ñi ne place bu kawe bi ko suñu borom tabaraka wa taala yëkkati ci kaw ay noonu ñu ko bëggoon a rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi da ko yëkkati place bu toll noonu moo tax mu rañaan mu yóbbu ko ba ci juróom-ñaareelu asamaan koo xam ne ak yonent musu faa àgg Haaruna aw nitam lor nañ ko lor ñu metti dugg nañ ci ak kookaale waaye dugg nañ wëlbat ku nekkaat ay soppeem ñu junjeel ko ci ne ko sow nit danañ la lor danañ fexe mu ne danañ la ko teg waaye danañ ñu jaar nag nekk say soppe Muusaa nag kenn ku nekk xam na moom lim daj lépp pexe yi nekk jaar nañ ci ak moom waaye mujj ga mujj na doon tege ci ko wax ka ragal yàlla wala aqibatu lil muttaqin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel noonu moo ko moo ko daal moo tax am na fu muy waxee ne laqad uudiya Muusaa bi akthara min daalika fa sabara li muy daj lépp am na benn taxawaay boo xam ne daf ne leen li ngeen di gis lépp li muy metti metti Muusaa yonent bi yàlla lor nañ ko lor ñu ëpp lii waaye teew daf ko mun ñu ne nag Ibrahima alayhi salaam ak wéeru boo ngeen ko gis mu wéeru ca Kaaba ga te foofa doon fa mu mujj àgg fa mu mujj gisee ak yonent bi ba ca mujj borom xam-xam yi nee nañ dañ ko ciy junjal ne ko kat sët mujj yow itam da nga dem ca néeg ba ba nekk ca suuf bi Ibrahima nekk ci néeg bi ci kaw aj fa aj boo xam ne soo feet yépp a koy teewe daanaka loolu doon yëngutu bi mujj ci yëngutu bu mag bu doon noonu boo xam ne dañ ko defee ak saw xeet kon xajjatu lu daal ñëw yonent bi def ko saxaaba yi ba mu ci jógee tegu ci lu bari dal di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam loolu bi la daati fi la yoo xam ne su fay yi tudd na ko ci si am bu dee ñu ci bëgg a jëlee nag ci ay njëriñ loolu te bari na lool na danañ ci tànn rek ci yenn yu néew في ربط البراق في ربط البراق الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب وأن ذلك لا يرتاح في التوكل ñëw gi ñëw ba agsi wàcc yeew alburaax door a dem di julli ci jàkka yi foofu mi ñuy denkal ne nit ki lépp loo xam ne yàlla na mu denc wala mu garde ko wala lu muy yeew wala lu bañ mu yàqu yàlla na mu denc ko fañ ko war a denc garde ko fañ ko war a denc garde ndax loolu dàq koontewul ak wakkiilu ci yàlla dàq koontewul ak wakkiilu ci yàlla ah watawakkal yeew ko ba noppi wàkkilu ci yàlla mooy am wàkkilu mooy day jàpp ci sabab yi ba noppi wàkkilu ci suñu borom tabaraka wa taala danañ jànge ci xadis bi itam teg yéen ni diisu maanaam yëglu bu fekkee ne da ngay dugg ci béréb boo xam ne du sa béréb yëglu boobu mën naa nekk nuyu asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam wala nga fëgg ñu ubbi la am nag ñaari mbir yu am boobu yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la moo di kii diisoo doon ne salaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam nga daal di ubbi dugg déedéet dañ laa fay am nuyoo waaye wax buñ la ne nga dugg da ngaa ñëw boole ñaari mbir yëpp lu ne da ngaa bëgg a dugg boole ko ak nuyoo fay nañ la nuyoo bi waaye waxatuñ la nag ndax xam nga ko comme lu bari ci nit ñi dañuy dugg foofu dina am lenn waaleykum salaam rek day ko bunt bi dajal ci biir am ñoo xam ne buñ fëggee bala ngaa wax ubbi nañ ba noppi loolu bokkul ci teg yi yëglu yëglu ñaan ndigal la moo tax istizaan lañ ko tudde muy ñaan ndigal buñ la joxee ndigal la bu buñ la joxul ndigal nga dellu te it buñ ne laa kooku wala kooku kan la bokkul ci ay teg yi nga ne man ndax man moom kenn xam fu mu toll gis nga jibril man anta jibril boo ko topp yëpp ba mu jeex kooku kan la day wax ne jibril kooku kan la jibril kon néewul fenn koo xam ne ana la wax boo nee ana kenn xamul fu mu toll moo tax ñëw na ci xadis ne kenn la ci yéen bu ñëw di fëgg ñu naan ko kooku mu naan ana ana nga wax ne man la jiw bu dee Zeyd la mën na Zeyd xam ne boobu Zeyd bu dee Muhammad ne xam ne boobu Muhammad danañ jël ñu ci xadis bi ne asamaan bam dafa am ay bunt yoo xam ne bunt yi dëgg dëgg yi ñuy ubbi ak di ko ubbi te bunt yooyee am na ñu fa nekk ñoo xam ne ay muwakkaliin lañ ay malaayka yoo xam ne ñoo ubbi ak ubbi kon loolu danañ ko jëlee ci xadis bi dana ci jël nit ne sopp nañ lool kuy dajee ku baax nga dajee moom ci mbégte ak takkagal ko bu baax a baax ak ci wax joo xam ne wax ju rafet la ak ñaanal ko sax doonte ki ngay ñaanal sax moo la gën doonte ki ngay ñaanal moo la gën sax dara dana ko di ko ñaanal yàlla di la sax la chaque année ñoom mu doon daje ñëpp mu leen gën waaye yow bu mu bëgg bëri ne ma daxaal yi di xëy gi kenn ku ci nekk def ñaar bu baax boo demee ci riwaayu Buxaari kenn ku nekk dañuy faral di baax di wax rek la neexbal na jiitu ñaar ànd ak bos ko ko bisalaah ñu ne ak bu baax kaa boobu de oh boobu di day dikk bu am solo maanaam tag di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanam borom xam-xam yi ne nee danañ ci jëlee jawaazu madxil insaani fi wajhihi ida umina alayhi al-i'jaab wa ghayruhu min asbaabi alfitna maanaam nit ki mën naa teew ñu wax ci moom lu rafet loo xam ne tagg lay nuru waaye day fekk ñi xam ne moom tagg bi ñu ko tagg du ko tax a bew du ko tax a tàbbi ci fit waaye suñ xamee ni kat moom daa bëgg ku ko tagg bi ko taggee mu daal di suqali waa daal di yëkkatiwaat ay jéem defar waat wane ne maa toll noonu su boobaa du tagg du dagal su boobaa tere ga day daal di ñëw waaye su fekkee xam nañ ne kooku moom ku koy tagg ku koy ñaan mu solo ci yow su boobaa dana dagal nga wax ko ci kanamam loo xam ne xeer tagg la ñu teg ci ne xikma bi nekk ci faratal julli ci laylatul isra ak yóbbu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci kaw ba mu gis malaayika yi ak seenu jaam dëgg la rëy bu julli rëy yi ci biir ndax yéen doon faratal dañ leen daan wàcce waaye bi ñuy faratal julli moom dañoo yéegee dañ daan wàcce ci moom ñoo jël si kon loolu day wane rëyaayu julli waaye day wane ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam boo xoolee riwaayaat yi malaayika yi doon gis am na ci ñoo xam ne seenu jaamu yàlla mooy taxaw xaw rukkoowu sujjóotu taxaw rek am na ñoo xam ne dañoo rukkoo xaw taxawul sujjóotu am na ñoo xam ne dañoo sujjóot xaw mu doon seen seenu jaamu yàlla am na ñoo xam ne dañoo suuf mel ne kuy daara loolu mooy seen seen jaamu yàlla nga xam ne loolu lañu dëcce ba xaw mu ne nag li tax yàlla woon ko loolu ma farataal ci moom julli ci anam yi ñu ko jullee mooy mboolem xeetu jaamu yàlla yooyu gis malaayika yi doon ko jaamu ñu defal ko ko ci benn rakka bu nekk aw xeetam man di ko def malaayika ya taxaw ya rokkoo ya sujjóot ya toog loolu lépp benn rakka bi wala ñaari rakka yu nekk sallaaw da nga def lu mel noonu da nga def xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne malaayika yi ñu ngi koy jaamu ci kaw asamaan danañ ci jële it jawaasu jawaazu nasx alxukmi qabla wuquui al amal wala qabla wuquui al fiqli li ñu tuddee nas ñu nasaxal ak àtte approché ko dagan na yàlla joxe ak àtte jëfee duñ ko mu soppiwaat ko loolu li won nañ li won ko ci julli la joxe woon waajibaat te boobu kenn julleeguñ ko sax julleeguñ ko kon yàlla mën naa joxe àtte jëfee duñ ko atte boobee mu dafa dugal ci changement li ñuy tudde nas dana ci jël yi ngëneel loo xam ne tukki guddi am na ko tukki guddi am na ko wala gënee na ko bëccëg ba tax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay tukkee yu bare bare bare dafa daan def guddi wala ci waxtu woo xam ne wu teel ci xew lay doon ay jaamu yàlla am kenn ku rek xam ne jaamu yàlla yi guddi moom la gën a fonk ci jaamu yàlla yi bëccëg loolu nag firi wut ne saa bu tuuti bu nekk yëkkil ba xaaj guddi nga door a jóg ndax bu dee bërëb boo am sécurité moom seet da nga xam ne moo dëppoo fa nga nekk nga jëfandikoo lu mel noonu mooy mooy doon fekk su boobaa ndax acte yi dafay am ay usul waaye usul yooyu léeg-léeg nit ka da koy génn génn ay sa bopp bu nekkee ci bërëb boo xam ne xam nga ne yow boo yoree oto di ko dawal guddi sax télé bi ñi ngay dajee ñu caaxaan lay doon ñuy foog loo xam ne dañuy daal seen léegi yàlla ñuy indi seen musiba accident yi am ci guddi du am ci bëccëg su boobaa am nga yow yëg nga ne jóg guddi tukki moo gën bu boobaa da koy teg ko teg ko fee ba ba ngay gis sécurité boo xam ne mënees naa tukki guddi te fitna du la ca fekk nga doon ko def wa fiihi an tajribata aqwa min tahsil al ma'rumat al mujarrad maanaam jëfandikoo expérience ak essayé mbir yi ba xam ko léeg-léeg mooy ëpp solo jàng ko ci écrit nit ki mën naa jàng ci écrit bu mokk lu bare bare bare waaye fekk bu pratique dikkee da cay yor ci lool nga gis bu pratique dara doon te jàng ko ci écrit bu xarañ ko lool gis nga Moussa alayhi salaam expérience bu mu am ci Banu Israël tax na mu xam ne xeet yay ñëw ku leen farataal ci ñoom juróom fukki ñu def ñu ko am kon kooku expérience boobu daf caa jaar du du ko jaar mu jaar ci bëri du ay jëf yu mokk dara du ko gis da cee teg bëtam Moussa dafa xam nit ñi du gëm ñu xam sa nit te yaakaar naa ne loolu doon wax xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu jullee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñoo julli ci Moussa alayhi salaam ñaanal ko sant ko moom itam ndax su fekkoon ne juróom fukki julli la tey kon mbir mi jàpp naa ne dana xaw a doy waar lool ci ñenn ñi ndax su fekkee juróomi julli yi sax dem na ba tey jii fekkee lu lan duñ julli nga gis ñoo xam ne da ngay soxla ci ñoom lool ñu door a julli kon jàpp naa ne bu doon juróom fukk moom taxatu ñu wax waaye nag xam bu mu xam doomu aadama ci expérience am ci daaw moo tax moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu ko wax وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها فإن لم يكن المنصوح لا بير النبت يجاب دونك كي غير لا بير صح تقول تي ولا كما كنا لا يمكن موسى عليه الصلاة والسلام بمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يبير بيوي كونسي يوي مو جاء يورنت بي مو ko dama bëgg loo ci xalaat wax ma ko la dara waaye dafa ñëw nekk ko lan lañ war a daal yow wax ko ko mu baax loolu soxee bi ko mën te bu ko dellu kon nit ki boo gisee ci moom lu gën ci moom aajowoo ñu laaj ko ci biir bul xaar mu di la wax ne laaj ko biir waaye laaj bi laaj ko biir ci loola ndax yàlla amal ci fexe xadis bi te ci njëriñoo subutul israa yaqinan bi ruuxi wal jasad al israa wal miraaj danañ ci jële ne li ñu tuddee al isra wal miraaj ni yàlla rañaane ak yonentam yóbbu ko ba ci naqsis yóbbu ko ba ci asamaan yi loolu lu wér la lu am ci sax comme ni ñëwee ci alquran alkarim subhana alladi asra bi abdihi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa noonu mu saxee ci alquran xadis yi dafay mu feddali ko ñaari kuréel nag dañoo réer ci bunt bi benn kuréel bi dafa wet ji rañaan bi yëpp wane ni gént la rek boo xam ne yàlla dafa sonn boo xam ne dafa tëddoon gént mu nelaw gis loolu yow bu nekk li gént la chaque ne loolu ak réer bu métti métti la ñi ko jiite mooy ñi nga xam ne seen xel la ñuy topp waaye topp ñu xabaar yi wax yi moo tax dafa gën a siiwee ci ñi ñuy tudde al mu'tazila nga xam ne ñoom jaamu ko ci xel lañ ñàkkul ba ci suñ jamono tey ñoo xam ne ngir moomee al mu'tazila jaaroon ci lañ jaar ba suñ jamono tey boo jàngee seeni mbind da ngay gis ne dañuy weddi ne al isra wal mi'raj doonul loo xam ne jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo dem ba jël si waat da ko jàngee xadis yépp loolu la ciy jële am na lu ñuy tegtaloo ñu ne Aïcha radiallahu taala anha dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa fokkee min sariri yi xattu yéen ko digoo rek kenn kenn su ko mu jóge ci lala waaye xadis boobu ci boppam doonu lu wér borom xam-xam yi xam ne munkar ndax Aïcha radiyallahu taala anha ci yooyu jamono boobu feneen la nekk waaye nekkul ko du soxna si yonent bi te bëri bu tuuti la boo xam ne àggagul ci yu mel noonu ay xam-xamam di ca nekk te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yooyu yorul soxna soo xam ne dañuy wax ne fii mooy laalam boo xam ne ko tëddee ko jógee ko jógee ba day xam ci ngeen ko dund parce que kenn tëdduloon ak moom doonte am na riwaayaat yoo xam ne dañuy wax ne ci kër Ummu Haani ca la fanaan bis boobu waaye waxuñu ne ci néegam ndax Ummu Haani xaj na biir ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mënta bokk moom benn néeg bi fanaan ak moom bu ñu waxee ne fi benn Ummu Haani maanaam ci biir këram benn néeg ci ay néegam fa la tëdd waaye tëddul ak doomu aadama dañuy wax ne moom jógewul ci am lala kon loolu wax la ci yóor kon kuréel bii wax ne rañaan bi génn ci loolu ñooñu dañoo yor ci boobu kon am beneen kuréel bu ci réer boo xam ne rañaan moom dañ koo ubbil yëpp faf ku toog ba mu neex rek nga ne rañaan naa yóbbu nañ ma ca kaw def naa lii gis naa nangam gis naa nangam jaaree nga ko nangam def nañ la nangam boo dikkee jox ko nit ñi ñu ne ah incha allah moom kon rañaane nañ ko comme ni rañaane woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la chaque ne loolu ay naxekat ñoo koy def ñoo xam ne nax boobu moo leen tax a jot ak yàq seen bopp bu nga yëkkati seen bopp ci kanam nit ñi wala bu ñu dul ay naxekat nga xam ne dañoo jommi maanaam seytaane moo leen dikkal jommal leen seen i bopp attanu la ñu gis ñu yeewu di wax ci yëf yoo xam ne waxtu rek lañ ko mën a tuddee donte duñ ci am bàkkaar rek nit ñi waruñu leen koo jàppee waaye waruñu koo gëm it nag waruñu leen ko jàppee waruñu ko gëm su fekkee ne la leen daal mooy manqué xel wala dañoo jom yi wala dañoo suñu xam waaye su fekkee ne ku ànd ak xelam la nga xam ne wóor na leen ni kii li muy wax moom ci boppam moom ñu koy wax moom xam na ne gëmut li muy wax te léegi nit di wax loo xam ne yow mi koy xool rek da nga xam ne kii koy wax gëmut gëmut li muy wax su boobaa yow jëru bi ko dañ ko déglu wala dañ ko bàyyi sax xel nga xam ne kooku ngir la koo xam ne ñaanal ko yàlla mu gindi ko te musal nit ñi réer yi ci ay loxoom yàlla musal leen gindi leen bañ ànd jàll ci siraatal mustaqim loolu rek moo ci doon sa taxawaay daanaka ci ak gàttal loolu mooy loo xam ne ci xool ci xadis bi ñu dikk xool lenn ci laaj yi nga xam ne jiit wóor na ñu doole ñëw ci yu bees yi kii gannaaw bu ñu joxe ay ñaanam amin daf ne lan mooy ak fekk woor bisu ajjuma ci dudul farata ala kulli xaal mënees naa woor bisu ajjuma ci dudul farata su fekkee ne da koy woor boole ko ak bis ba ko jiitu wala bis ba ca tegu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ba mu ko tegee daf ne illa an yasuuma yowman qablahu aw yowman baadahu du dafa woor bis boobu du wala sa ca li ñuy bañ mooy nga tànn na ko moom dong en tant que ajjuma di ko woor ba tey mu ne su ko woor nag moom dong te doo woor bis ba ko jiitu wala ba ca tegu su fekkee ne dafa dajee bisu koor lu mel ne yow mu arafa mu nekk ajjuma te nekkoo arafa bis boobu mën nga ko woor kooru ngàtt te doo ne daal loolu la ko kii daf ne daa ñëw ci xadis ne benn kuréel rek ñooy dugg àjjana ab laaj mooy ndax borom xam-xam yi juyoo nañ ci loolu laaj yi xaw ci mu rànce tuuti ma des naa wax ni ñuy léegi loolu wala lan muy maanaam loolu waaye ndax borom xam-xam yi juyoo nañ ci pour xam ne ñu yor ci rek loolu xam-xam boo xam ne day doy ak xam-xam al firqatu naajiya yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis wax ne xeet bi danañ tàqale ko juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett yëpp a yeyoo sawar am des benn kullu fati naar illa waaxid ñu ne ko boobu ban la mu ne man kaana ala misli ma ana alayhi al yawma wa ashaab ñi nekk ci lii ma nekk tey maa ngi suñu foofu ngir dégg xadis bi moo di ne istixqaaqu naar bu ko duggoon naar ndax laa sakka ne kuréeli bidaa yi nga xam ne seen bidaa agul ci kéefër njëkkalu suñu borom tabaraka wa taala am na leen a laaj naa ki nga xam ne njëkkal mën naa agsi ci moom nag ëllëg nga xam ne yóbbaale na toog yi ala kulli xaal ak lu mën a yóbbaale suñu bàkkaar mën naa doon koo xam ne dañ ko jox lam yeeyoo ba noppi muy mbugalum sawar mu jaar ci ba àggal ñu door ko jënd ñu ko fàjjal mën naa doon koo xam ne itam dañ koy jéggal mubasharatan dañ koy jéggal mu daal di dem dañu jaare feneen yoon na yàlla mosul ñëpp ci jaare feneen kon kuréel boobu firiwut ne duñ dugg aj kuréel yooyu yi mu wax firiwut ne duñ dugg ajjana mukk waaye seen xar mooy dugg sawar su fekkee ne ñu yóbbaale dara leen ci iman ci tawxiid ñooñu mën nañoo dem ñu jéggaleen seen bakkaar ñu dem dugg ajjana comme ñëpp mën nañoo jaaree ñoom feneen mbugal leen ba noppi génne leen dugal leen ajjana ci sabab su bañ àndal ci tawxiid waaye fii ci àdduna bu leen di àtte da ngay wax ne seen àq mooy sawara ndax xotti ne rayyaw wa baddalu comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci ñoo ñu gis ne ëllëg dañ leen di dàq ba duñ naan ci déegam ba mu ne leen ñii samay nit leen samay àndandoo yi mu gëm ne dina ko déedee xamoo liñ sos sa gannaaw dañoo soppi dañoo changé li nga xam ne loolu la fa bàyyi teg na ci mu ne lan mooy àtte way ak yu bëri bëri ñëw na ci rawatina su fekkee ne dafa ànd ak benn xeetu laxm bu ñuy jëfandikoo muy xeetu miski boo xam ne daf cay ànd incha allah daal mooy loo xam ne ñàkku la am dalil ci ak dagal incha allah nag buñ ko waxee mooy yëkkati ay bayit wala lu ko nuru di ko daaj daaj yi moo xam ne wu fullawu la te xoneeku ca ay caaxaan nekku ca di ko def ci anam boo xam ne kuy xemem loo nit la xasaan ibnu saabit radiallahu taala anhu daana ilqaa te loolu mooy inchaat lenn ci ay xasaayid yoo xam ne moo ko daan def bu koy def ci jàkk yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu nekk minbar boo xam ne daf ci daan tontu yéefar yi nga xam ne dañuy sànni ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam di leen tontu yonente bi alayhi salatu wasalaam di ko soññ ci loolu di ko xul damaa ko ruuxu ruuxul tudd si maak waxal nga xam ne jibril la jëlee dëgëral ci li nga nekk kon lu mel noonu la nekk lool waaye nag bu ci bisi fase dugg rek xaraam moom dikk na bu dee way yoo xam ne way kese lañ nga xam ne neexal baat kese kese ko tax a jóg loolu jaarul ci góor ak doye dina daal di doon bu dee jigéen nag mu tax a jóg jigéen moom moo xam bisik la wala misik wala lu moom la waaye yëkkati baaraam bu koy kooku dafa xaraam ci moom ka koy déglu te man caa taxawu si man koo bañ a déglu koo koy dafa xaraam ci moom faaw mu ne te man koo bañ a déglu ndax néew la ko mën a mucc fii lu toll nii ci déglu musique ci ci ci ci suñu réew mi da ngay nekk ci sa biir kër jàpp ne mucc nga ñu ñëw tegal la ci baaxal ci sa dugg kër wala ci sa benn di rëdd na nga xam ne noonu la gën a umbi nga xam ne boo mën a dugg lu mu rof rof faaw nga di ko dégg waaye nag su boobaa la nga cay man mooy bu fekkee ne mënoo ko soppi ci loxo mënoo ko soppi ci ollam bi la ci sus mooy am ca ola par ba teew nga jeex kii lay laaj mu nekk koo xam ne pas-pasu ahlu sunna wal jamaa la yor di jiite ci jàkka yoo xam ne ay nit yu biddaa ñoo fa nekk te nee na day xob ba ajjuma ju nekk waaye nag moo tax mel sax ci boppam lay wax nee na damay xob ba ajjuma ju nekk waaye mënu maa wax dara nag lu jëm ci wàllu tawxiid wala lu jëm ci wàllu biddaa ah loolu nag doy na wax loolu moom doy na maanaam soo mënut a wax ca biddaa yi itam ne naa nga mën a am biddaa la wala nga wax ci tawxiid ak sunna man ngaa jëfandikoo uslubu ne al amru bi shay'in nahyun an diddihi digle dara boo ko defee yaa ngi tere safaan boo jàngalee tawxiid yaa ngi tere bokkaal boo jàngalee sunna yaa ngi tere biddaa te loolu moom lu nit ki fekkul feebar war na mën a jàngale tawxiid su nit ki demee nag ba lott na ci mën a taxaw ci biir dërëm jàng ay alxuraan boo xam ne tawxiid lay jàngale mu firi ko nit ñi waaye boo xam ne sunna la jàngal nit ñi ak topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mënatu koo firi ci kanam nit ñi na wàcc boobu bin bar nag desee keneen ku ko ku ko mën a ñu wax waaye foofu moom du loolu place kii dafa laaj mu ne ndax ahlul kitaab waaw football bi dëgg la football benn sport ci sport yi xeetu sport yëpp dañuy dagal ci ay dawar maanaam day am foo xam ne fa lay dagal yi football am na yu bari ci jaxasoo yoo xam ne yu dëgër maanaam da koy yóbbu ci ñàkk dara la ci jiitu mooy col bi góor bu dagal ci moom dara di feeñ ci li dox diggante bi woo moom ba ci jëmbu xam te kenn ku nekk xam naa ne ñu ngi sol ñoom àggul ci seen wóor li ëpp ci ñoom bokk beneen bi moo di waxtu julli léeg-léeg ñu yàqal ko seen bopp mu jot yaakaar ko itam public boo xam ne kenn xamuñu toll waxtu julli yëpp kenn ku nekk julli ñu nekk di xam beneen bi ci des mooy def ko métier aussi bala am pàcc la moo xam ne pàcc bu mu seetlu la beneen bi mooy fitna yi ci nekk nit ñi ñu leen yëkkatee ba def leen ay star yoo xam ne fu génn nit ñi fitna wu ci ñoom rawatina jigéen ñi ñu mel noonu kooku yëpp ay masala yoo xam ne day tax mbir moomu dawaa bi gi nga xam ne sharia yi tax mu ne sport ay dara boo ko xoolee yëpp da ngay gis ne day wut ci loolu ci lii laaj mu ne ahlul kitaab ndax ñoom ñuy ahlul kitaab rek suñu jamono tey am kay ñoom la léegi nag nit ki day defe ne du ñoom ndax soppiku gi ñu soppiku ak dem bi dem ba rek di di yéefa di wax ne yàlla ñett la wax di doomi yàlla ñu mel noonu waaye ñi xam ne loolu dañ ko doon wax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalithu thalatha maanaam kon loolu dañ ko dalee wax yàlla bon na lool te teewul woon ñu doon ahlu kitaab yoo xam ne seen atte bokkul ak atte jaamu ko ci xërëm kon ñoom ñoom ba léegi la daganoon si ñoom dana dagan ba léegi kii def ne soxnaam dafay liggéeyam daal mooy defaral jigéen ñi seen i taar seen xar kanam seen boppam ñu mel noonu nee na mu bëgg a bàyyi liggéey boobu jëkkëram ne ko bul ko bàyyi muy laaj rek lan la lislaam wax ci loolu dañuy xool li mu leen di defal ndax lu baax la lu dagal naa ne su fekkee fàkkar bi mu leen di defal xeesalal leen la ci jublu loolu mu baax loolu day xaram bu dee bopp yi mu leen di defal rek day yokk kawar loolu itam lu xaram la baax waaye nag su fekkee defar kawar dafa nekk la jar beet ñu defaral ko ba mu set benn xeetu feebar bañ caa nekk loolu moom xeetu feebar la xeetu taaru boo xam ne islam dagal la su boobaa doon loo xam ne luy wàññi dara kii dafay laaj ne yéefar boo xam ne dafa tuub am nay alal yoo xam ne dafa fàggu woon ci kéefëram ci bunt boo xam ne dafa xaraam waaw ndax nu muy def alal yooyu ndax duggee ci lislaam day dugg ci alal bi yëpp wala waxoon naa la ne xeeti alal yi xaraam ñaari xeet la daa am xeetu xaraam boo xam ne su ma ko dee leeral ci buub leeral yi mu leer nañ ñaari buumi xaraam la am ñaari buumi xaraam benn bi mooy dafa xaraam di jël jëm boroom ndax yàlla dafa xaraam xaraam di jël jëm ak moroomam loolu da cay misaal mooy alal yoo xam ne da koo sàcc yàlla xaraamal na sàcc waaye fab na alali moroomam alal jum këf jum mbur boo xamee ko nax xeeti bunti client yi nga xam ne moo am ci jamono bu jëfandikoo ci lenn ba jël alali jàmbur kooku xaraam na ñaari yoon digganteemu borom digganteemu moroomam alal joo xam ne dafa xaraam ne moom nag bu borom ne tuub faaw mu delloo ko borom dana defar lu nekk digganteemu borom ndax dana tuub ne tuub sàcc duutu nax duutu wul waaye alal ji am solo moom dana dem delloo ko borom ni su fekkee mi ngi dund su dund mu jox ko ñu ko war a doon su ñu ko war a doon nekk mu yóbbu ko baytul maal su fekkee ne réew mu amul baytul maal la mu xool organisation yi nga xam ne ñooy taxaw lislaam yi taxaw ñu ñàkk mu yóbbu ko foofa maanaam fu mu ko yóbbu du mën a ñàkk loolu mooy def loo xam ne dafa xaraam si ñaari wet am loo xam ne nag dafa xaraam ci digganteemu boromam rek waaye moromam amu ci xàq ab kàccoor yi boo xam ne dafa ubbi baax di jaay sàngara ab kàccoor jóge ba ñëw jël xaalisam joxe naan sàngara dem waaye jël xaalisam def ci poosam xaalis boobu xaraam na waaye digganteem boromam la kenn du ko wax ne mu kàccoor bi naan sàngara demal dellu ko xaalisam ndax amatul xaalisam xaalisam dem kon waaye ji moo ko moom waaye dañ ko xam ne dafa xaraam su ko defee nag ci tuub te fekk alal bi mu yor doomu aadama yi boo ko ñuy xàq alal yooyu kenn du dafa delloo mën na koo jël fa in tubtum falakum ruusu amwaalikum ak faman jaahu maw'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf sañ na koo jël sañ na koo lekk sañ na ko jox nit mën nañ cee tabax ay jàkk mën nañ cee def lu nekk waaye lu mu ca mën a def loo xam ne xeetu jaamu yàlla lay jullit ci moom danañ ko jëriñoo rek waaye nag kenn du ko noonu ndax seen maanaam def nga dana wér waaye diis ko noonu maanaam sixa dana ci am waaye xabul ci am xam ngeen ne borom xam-xam bi ñu wax laa talaasuma bayna sixati wa xabul dara gën wér bu noppi ko am tabax na ci jàkka tabaxam jàkka noonu wér na parce que alal la joxat moo ko moom waaye ko moom seen julli yi dana ci julli incha allah seen julli du wér dem na ca ci màkka kii àtte ci nit dana ne ko ah yow de aji nga ak lislaam waaye ca biir nga xam ne kenn mënu ko ajam daal loolu leer kon yéefar boobu yi dañuy xool alal jëm fàggu ci nan la ko fàggoo woon su fekkee ne da doon jaay yu bon rek ak yu mel noonu ba tuub non mën naa rafetal ak tuubam waaye alal mën naa des ci loxoom doon te ni mu ko amee ñu baaxoo la wallahu taala mu ne Idris ak Isa dañ leen yëkkati ndax ne Isa ñàkk a faatu Idris dafa ñàkk a faatu wallahu aalam loolu comme ci mu nekk mu toll kii mu ne dafa dégg ne doomi njaaboo su fekkee ne kañ koy askane nangu na ne moo ko jur kon waa ji mën na koo doon xale bi mën na koo doon bu dee chériatu islam bi mu ko doon maanaam su fekkee ne li wér moo di jur ko ci ak buum su boobaa mu ko doon loolu mooy li wér ci chériatu islam su fekkee ci aadal bi wala ci yeneen wala mu yéene ko alal ma boole ko ci ay doon mën naa yow beneen turu bu ko def doon na ci lislaam soo amee ñu am asile chef bi ñu mën koo continuer.
Salaamaaleykum. ak kii bi dañu yàlla suñu dara fay sàmm. dafa am benn mbokk boo xamante ni tuubee la léegi nag bu tuubee yàlla def na moom day liggéey liggéey bi daal xaw na trop tuuti léegi lu ko wër nag benn sarax boo xamante ni da koy gën a gaaw ba bëri bëri somme bi ci préparé ñu ne diggante cinq cent mille ak un million mais dama xaar boobu tey waaye bu mu xalaatee tey mu gis ni mais dafa xalaatoon tey kenn waaw.
après bu si Sénégal amul dëkk boo xamante ne daal kii li gis moom ah ñëpp ay sunnit lañ ba mën leen defaral teen te li ne koy mën moom mooy mu mu defar teen boo xamante ne ay sunnit lañ ci naan léegi nee na léegi nee na ginnaaw yi nag après lu nit boppam léegi moo war su ma ñëwee ma laaj dafa xam ne lu ko mën a conseillé ci diggante cinq cent mille ba un million nekk yiw bu bëri bu ñu continuer booy mën a am.
alhamdulilah ala kulli xaal eh, eh, def na lu baax ginnaaw mi ngi mi ngi laaj ndax ku xamul ku ne laaj mooy tax nga xam nekkul sart ci ki nga xam ne day gas ab teen wala mu joxe aw ñam ñuy lekk wala yére yi ñuy sol mu ne na ko jagleel ak kuréel bàyyi beneen ndax bépp bakkan boo xam ne bu dund la nga xeet li ko ba mu dund bépp bakkan bu maar nga jox ko mu naan bakkan bu xiir nga jox ko mu lekk am nga ko yàlla ci loolu bakkan donte sax bu bakkan bu nit nit dab bi la nga jël ci xaj ak xaj kël bu boo xam ne dafa dafa mara mara mara mara mara bay yëy suuf si mu romb ko yóbbu lu mu roote ca teen ba mu daal di yor ko daal mu xëcc ci am ndox jox ko mu naan dugalaat daal yoon joxaat ko mu naan joxaat ko mu naan mu daal di xëcc li ku jóg di dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg na ko àjjana ci sabab ci loolu kon su fekkee mala xett li ko bu mu mucc dana dugal nit ki ci àjjana ci loolu kon doomu aadama taxul ñuy wax kon la chaque ne bu bëggee wax ne day doo ko xaar ba gis ab dëkk boo xam ne ahlu sunna rek ñoo ko dëkk mu door leen gasal ab teen kon boobu dana yàq gasu teen ñaareel bi mooy su ko gasee ba noppi mun na garanti ni ñoom ñoo ñoom doom ñoo koy naan ndax ku ñëw ku nekk fekk fa am ndox te maar koo laajee wax ne ñu bëgg naan kon li mu bëgg a def mooy mën na koo def mën naa gas ab teen gasal ko ay nit ak buñ mën a nekk ci kaw suuf yoo xam ne wóor na ni ñi aajoo nañ ko mu def loolu yëpp ñu def ko loolu lu baax la su mbokk yi nekk bi organisé wuñ ci anam boo xam ne ñoom docteur Iman Ndiaye gaa yi ñu àndal ci organisation bi bokk na ci seen programme yi ñu def moom lu mel ne loolu gas ay teel di ko defal ay nit yoo xam ne ku ko bëgg a def boo leen defee ñu réalisé loolu defal la ko ñu am mar na te la chaque ne loolu ci li baax la ndax sadaqa jaariya su fekkee ne loolu itam lu lu lu ko yóbbu lool la dangay alquran yi maanaam sonn lool lot lool soxla lool ku leen jàppale parce que daanaka alquran mën na nekk ci réew bi fu mu mën a doon soxla woon ko jàppale. 500 millions boobu dafa war su ko yëkkatee ñëw ba ci sëriñ daara boo xam ne dañ ko yóbbee sa location bi bu wut léegi génne la mu jox ko mu fay ci location bi weer sax kooka xéewal la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala rek moo xam nu mu toll kon bunt yiw yi moom bari na lool kii bëgg a def moom du jaaxle mukk ci li mu def mën la koy def wallahu alam kii nee na dara ko jàpp si rek ko ñaari yoon ci weer bi da ko yàlla jàppale si xam naa ñu doon di ñaan mu jàppale incha allah sama kenn salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant suñu borom tabaraka taala di nuyu si rajo bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom bàyyi na la yow ci jom la ñu toll suñu laaj mu ngi jëm d'abord ci bi nga yéen yonent yi doon naa ko ko wax sax mais dikkal yi mais yu jàllal noo li mu def ci maanaam moom mu jëkk yàlla jëkk yónni ñu nga gis ngay tudd ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na rencontré dégg mu mën nga wax ci affaire te dellu si nga ci bëggoon naa la gën a yaatal moom bi yàlla ñi ko yónni juróom ñeenti téeméer ak juróom fukk bi yonent bi dem dégg mu ngi wax fukk kenn kuy ko kuy wax ne bis bis na ko laal wala nekk na kooku benn la ñaareel bi dama ñëw ci benn kër nuyoo ñetti yoon kenn sooy wax ma ñett benn bi ma ñëw nuyoo kenn waxuma bismillah waaye fay nañ ma bañ a dugg mu doon benn problème boo xam ne bëggoon nañu xam ndax est-ce que bu ma nuyoo kenn ñëw ma bismillah mën naa dugg wala waruma dugg beneen bi ci wàllu kii jargat yi ak lu waay yàlla yi lu mel ne benn mois. ñi ko jëlgat ñi nga xam ne day taxaw taxawaay boo xam ne dañuy dimbale yàlla ci li nga xam ne lii moom la tëral lan moo war ci jamono yi ñu toll ci ñi nga xam ne dañu éliminer peine de mort te yàlla établir ko est ce que dañuy toog benn xool lii rek wala war nañu def benn action bu mu di ko
alhamdulilah ñu tàmbalee ci njëkk bi waxtaan ci li borom xam-xam yi tudd ne xikma la maanaam sabab la ci li tax ñu tànnal ko lenn ci ay yonent mu dajee moom ci asamaan am yeneen yonent yoo xam ne dañoo gën ñoom moo di ak nuróole boo xam ne nuróole la ko ak ñoom mbir Nuux alayhi salaam la shakka ne joxe nañ ci daawa liggéey metti ak effort boo xam ne metti na te yàgg na metti na yàgg na ndax ci biir daawa rek ci biir daawa am na ba alfa sanatin illa xamsina ama maanaam neuf cent cinquante ci ay at nga am fi béréb di daawa kon kooku yàgg na ko lool sonn na itam waaye nag muy résultat la wa ma amana maahu illa qalil ba coono bi bëri bëri ak woote ba bi lépp ñëpp jëlee bu utile mbooloo suñu ngir fa mbir ma mujj xam nga ko mooy ñu labal ñaar ñi maanaam tàmbaliwaat daanaka mooy ay ña fa nekkoon ñëpp ñu àll lu dul ñëpp gëmoon mbooloo suñu soose ñu tàmbaliwaat continuer nekkaat ci loolu yëpp yi àggaat kon boo gisee ñu tudd yeneen yonent yi nga xam ne seen mujj dañoo mujj not nag ba dem si waat yor kàttan kooku mooy doon di sàmm dëkk xaalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee Yusuf yàlla na ci ay coono yu métti waaye dafa mujj boole nekk nekk malik muy buur nekk ak yonent ñu nekkoon ci suufam yëpp doon ko wet ñu daw dikk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la mujj boo xoolee yeneen yonent yooyu yonent bi kenn ku ci ne mbiram luñ ko nuroo leen moom noonu la nuroo leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye Nuux alayhi salaam ànd ak effort ak yiwam bu bëri wet boobu nuroo leen ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam résultat yi moo leen moo leen waxee mooy ñoo ko wéyoon yëpp dañu mujj gëm ko kii la ñoo ko wéyoon mujj ñu gëm ko sax waaye li ci war dañu mujj kon aw am naa nag ki ñëw ne asalaamaaleykum ñu ne ko waaleykum salaam waaye kenn néew bu duggal wala ne ko bismillah wala yu mel noonu kooku sax na ci sunna ne mën naa wax ne ah ah dugg ndax ma dugg bu ñu ne ko waaw mu dugg bu ñu ne ko déedéet mu def waaye dana ci yàlla rek salaamaaleykum waaleykum salaam nga daal di dugg déedéet nga daal di dem déedéet ba tey kon da ngay laaj ndax ma dugg bu ñu laa bismillah duggal nga dugg kon loolu moo ñaan ko beneen bi ci des mooy man léeg-léeg média bi nit ñi dañuy jékki-jékki jéeri mbir bi ci soo coow loo xam ne boo ko xoolee ba ci biir wax dëgg yàlla jot ko benn de moo maanaam nit ki fa dictéré nit nañ ko rek kooku laa chaque ne nit ña ko atte moo gën ci ñoom pour seen mbir baax la ñoom seen mbir baax moo ko tax a jóg ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب للرب تبارك وتعالى ku rey ñu rey la nee na loolu siinu dund a nekk ci biir ndax day tax kenn du may tuut may kenn ki ñëw bay def loolu bopp bañ a def loolu boppam lay doon waaye loolu diine bi islam ko tey nag ñu xam ne maanaam nit ñi suñ jëloon lool maanaam nga xam ne loolu doon nga ñëw jokkati ko ci dëppoo ko ak l'islam bi ko atte woo te l'islam yi ci des yëpp nga bàyyi ko foofu loolu kenn du ko tuddee l'islam moo tax boo ko dindee kenn wax ne da ngaa dindi l'islam ndax aslan yow nekkoo woon ci l'islam wuute ko te Occident léegi dëppoo nañ ci ne li ñuy tuddee finance islamique moom doon moo mën a yor réew ñi commencé di ko ubbil ay banque di ko ubbil ay fenêtre di wax ne nañ nañ bàyyi intérêt nañ def naan nañ def naan waaw loolu daa tax ñu doon jullit léegi dañoo xool lu leen ci avancé rek mu baax ci ñoom ñu jël ko lépp waaye kenn nañ ko nañ ci islam ku toogoon ci sam réew moo xam ne bu réewum jullit nga nekk ko ku rey bi dañuy rey ku sàcc dañuy dagg sa loxo ku ñaaroo dañ lay dóor ku def naa la atte yi l'islam atte ci luy organisé dund gi yëpp nga jël ko di ko jëfandikoo te atte woowu l'islam boo ak jullit defoo dara kon dañ naan jël na rek li koy jariñ ci addunaam ci l'islam waaye tax ñu ne ñëw na ci l'islam kon ki tindiroon xëy na woon bis kooku ba mu ba mu tàmbalee xeex l'islam boo du tey maanaam du jaay di loolu ba mu moo ko dugal ci ne ci nekkul jullit benn moom moo xam andi nañ moo xam yóbbu nañ ko atte woowu l'islam su ko nit ñi andee rek ba mu moo ci seen dund comme ni nga xam ne yeneen yi ci des suñ ko andee moo gën ci seen sécurité su boobaa ci cadre boobu du koy dugg ci cadre attewu l'islam ñàkk ko attewu l'islam l'islam attewu wuñu ko loolu moom dañ ko war a léegi ko moo tax sooy wax naan nan lañ war a def dañu war a toog rek di ko seetaan maanaam dañ seetaan loolu dong maanaam gën naa rëy loolu maanaam moo di jëmmi l'islam ci boppam système de dund gi ni dund moom ci boppam mu tegu ci l'islam boo xoolee yëf yi njëkk a màppe ñu gëm ne saafara soosu nag nekkul ci ne dañuy def benn réaction rek ci benn bés wala ñetti fan wala ñeenti fan ñu naan mbir ma ko sotti na léegi ñu réglé leen mbir léegi liggéey bu yàgg la boo xam ne mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon liggéey te jàpp naa ne amu ci liggéey bu gën a ñor bu gën a tegu ci yoon jàngal nit ñi ñaar leen nit ñi dañoo xamul seen diine dañoo soxla ku leen ko xamal ñu bare bare bare bare seen i càggante ak mbon ko ci bakkan yi taxul waaye ñàkk xamul dañ leen a réeral réew mi nekk lu bare bare bare bare bare lu fi yëngu luy réerale boo demee ci média bi dañuy réerale nga déglu waxkat yi dañuy réerale nga dem ci ñi ñuy tuddee ñoo xam ne ñëpp dañ leen war a tuddee dañuy wax ci turu diine buñ taxawee di wax lépp ci ñoo xam ne place bu mel noonu la yàlla teg tey teguñu ne ñu salaatu mustaqim yéeree ci loolu yooyu yëpp nag su àndee jëm fenn nga xam ne doomu aadama yi la ñuy jëlee ci ñoom loolu lu leen di xawal seen diine ñu leen di delloo ci alquran ñu leen di delloo ci sunna su lu mel noonu nekk ci ak da ngay yëg ne ñëpp ca am responsabilité noonu nag li ñu gën a jàpp toujours rek mooy jàpp ne mbir mi su xasee ni xasee am rek état bi moom mooy responsable mais ñëpp ca am responsabilité kenn ku nekk ci sa bopp ci sa kër ci sa njaboot ci sa dëkkandoo ci sa jàkka ñeneen déglu kenn ku nekk am nga sa responsabilité sa diggante ñoom ci jàngal leen ak yar leen loolu doo mën a mooy saafara su amul benn saafara gis nga réew yi defoon ay réaction jóg ne dañuy mag réew mag la ko nekkoon ngir fas yéene indi l'islam ba léegi dara jaa ngi dóor te dégguma ci kenn ko déclaré ne dañu àttoo sey tabagu ci te ñooñu ay naar lañ boo xam ne dañoo gës tell borom xam-xam yoo xam ne dana jàng nañ ko seya waaye ba léegi dara sëddu xeex ak kuura dafay def ko yàq doom moo ko nekk kon loolu du yoon la même si dala woon tey gars yi suñu amoon gars yi tey ñi jox la réew mi nga jiite boo ko amee ñetti fan da nga ne ah man de xamoo léegi nii la demee ndekete mbir mi gaaw soppi ko nii boo taxaw ne convocation charia te jullit ci boppam ñooy taxaw ne la yow mii da ngaa bokk ci naan wala da ngaa bokk ci naan am na wala def dañ ko fi jël su boobaa loolu la kon mbir mi ci base bi la nekk faaw nit ñi jàngale alquran faaw ñu yar leen yar alquran faaw ñu def ci ñoom jom ñu nangoo jàng xam-xam nangoo liggéey xam li baax maandu jub askan wi mel noonu lañ soxla daanaka tabaxaat aw askan loolu lañ soxla te loolu xam-xam ak yar boo ko mën ñaar yooyu mooy loo xam soxla وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ان شاء الله تلقى خيرا